wax dëgg yàlla lii du yoon te ñu ci interpellé waat le gouvernement du Sénégal ne ko nañ ko taxawaat saytuwaat ko defaraat ko joyal ci waat ko ba nga xamante ni doomu Sénégal yi yi nga xamante ni am nañu yéene taxawal seen réew su boobaa dinañ mën a taxawal seen réew ci seen gàttal ci processus yëpp laa wax muy nañ koy saytoo au niveau de la DGE e, muy gunge boo xamante ni ñan nañ DGE e di ko gën a def ñi nga xamante ni am nañu yéene bokk ci élection yi

ñu amoon tamit benn exigence bu ñu amoon mooy fu ñu ci toll rek dañoo dinañ wax ak yéen fu ñu ci toll it wax nañu ak yéen luñ ci dugg it wax nañu ak yéen ngir au nom du respect de la parole donnée au nom de cette éthique bi nga xam dinaa ci dellu siwaat bi nga xamante ni moom moo nekk suñu contrat moral bi nga xamante ni moom moo dox suñu diggante bi ñu ci jógee ñu ñëw ci euh, pré campagne bi pré campagne bi tamit sénégalais yi ak sénégalais yëpp bu ñu ci ci biir Sénégal ak ci bitim réew yëpp ñu leen di gërëm ñoom ñëpp fi ñu ci jot a dem rawatina muy France muy Italie ñu taxawu ñu taxawu boo xamante ni bu jéggi dayo la gunge ñu tamit taxawaay boo xamante ni ci guddi ak bëccëg nga xam tey ji diaspora bi kenn xamul jafe-jafe yi dund ni mu toll waaye ak temps ni mu chéré ci ñoom waaye ba ñu demee gis nañ ne seen temps li muy xat xat xat gis nañ ne Sénégal ni mu toll ci ñoom ñu bàyyi seen yitte yi di ñu gungé ngir gëm Sénégal ngir bëgg li nga xamanteni mom moy Sénégal ba ñu dugg ci campagne bi campagne bi tamit ñu dund ko dund bu metti waaye li ma waxoon léegi yéene bi ñu am moo tax dara du ñu téye campagne bi am nañ ci ay jafe-jafe yu metti comme ni ngeen ko xamee doon nañ dem ba ci barab du ñu am li nga xamante ni moom mooy carburant bu ñu yóbbu waaye seen yéene ak seen pas-pas moo doon nekk suñu carburant daan nañ dem ba ci barab du ñu am lu ñu lu ñu xéewlu maanaam liggéey ba pare ngoon jot doo am loo lekk yitte mooy feesal sunu biir yi mooy dalal suñu xel ñu dem ba ci yàgg dootuñu am fi nga xamante ni daan nañ dugg ci dëkk def liggéey bi xam bu ci nekk rek ñu dajeeg sénégalais yoo xam seen yitte ak seen pas-pas toll na noo xamante ni ñun ñemewuñoo jooy lool ndax bëgg bu ñu bëgg a taxawal senegal loolu moo tax te njëlbéen ga dañu waxoon ne wax dëgg yàlla xaalis day baax na xaalis de am na njëriñ ci liggéey bi ñu def waaye nag xaalis jàmbut a xew li xewoon mooy itte itte moo doon nekk contrat moral bi daan lal diggante yi bi daan sàmm diggante yi bi daan sàmm kóllëre yi bi daan sàmm pas-pas yi ñun nag itte jooju rek moo tax ñu xam ñu nu ñuy def Sénégal bi nga xamante ni moom rek la ñu am moom rek la ñu am te moom rek la ñu bëgg te waxoon nañ leen ko keroog ci 22 avril ne woon nañ ñi muy yàq ñi ñi jóg pour yàq lu mu leen jaral rek jaral nañu ko ñun ñi nga xamante ni dañoo bëgg a defar Sénégal que pour que le Sénégal demeure un pays stable, de stabilité sociale et demeure une promesse de paix. li nga xamanteni tamit constaté nañ ko ci biir campagne boobu ba ci ak scrutin bi mooy wax dëgg yàlla sénégalais ak sénégalais yi amatuñu benn yaakaar ak njot ci li nga xamante ni moom mooy politicien Sénégal seen yaakaar dafa yàqeeku. seen yaakaar dafa dañ foo ci dem liñ lay wax mooy ah ñun de voté loon nañu voté woon nañ waaye xamatuñu lan la vote bi di jëriñ ñu tënk ko ci benn triptyque boo xamante ni ñun dañoo ñëw pour soppi doxalin boobu soppi bi président Abdoulaye Wade doon wax en 1974 soppi soppi boobu tey la gën a nekk farata ci doxalin bi ndax politique du yàqante politique du sosalante politique du boddikonte politique du waxante lu bon politique éthique la politique bëgg lu baax la politique bëggal sa askan lu baax la bëggal sa sa sa sa sa sa réew lu baax la loolu mooy politique dara gënu ko am solo waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk yàq ko ba ku ci dugg dañ lay fexe yàq ba li ñu jublu ci bëgg laa yàq mooy ñu nag moo ma yem loolu nag dañ koo bañ dañ ne lool bu am te waratul am te Sénégal mérito na leneen loolu moo tax bi ñu demee di ko di wax ak sénégalais yi dañ ne leen critique bii nga xamante ni gis nañ ko mooy séduction élection trahison ñu ne lii moom dina fi jóg lii seetlu guñ ko seetlu ci biir ak ci biir Sénégal di leen nax li Cheikh Anta naan nax nañu leen a nax a nax a nax ba kuñ le kuy wax ak ñoom di leen wax dëgg sax da ngay tax seen yaakaar ndax dañ leen di nax rek nax yooyu nag moo tax buñ deman di di wax ak ñoom dañ naan leen dañoo ñëw pour wax leen li leen politiciens yi dul wax dañoo ñëw tamit ngir wax leen li nga xamante ni moom mooy dëgg du ñu leen wax lu ñu xamut du ñu leen wax lu ñu narut du ñu leen wax lu ñu mënut gor gor nag du jub gàcce mukk di ca egg moo tax ñeenti million sénégalais wala lu ko jege élection yi boo tëjuwul dañoo toog seen kër ñeenti million sénégalais boo tëjuwul wala lu ko jege seen kër lañ toog waaw loolu jàngat bu mag moo ci am solo mooy ñooñu dañoo bindu ci fichier électoral am carte électeur comme ñun waaye keroog ci 31 juillet dañoo tànn ñoom toog seen kër banque seen loxo moo tax nag ñoom dañuy wax ak ñoom bi ñu gërëmee sant ñu ñu voté ba pare. ak ñi ñu voteelut ñoom ñëpp gërëm nañ leen waaye ñi toog seen kër it xam nañ li tax ñu toog mooy il y a divorce entre l'éthique et la politique il y a divorce entre l'éthique et la politique ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy gor yi def wecc ak ñi nga xamante ni jaaxle nañ am nañ njàqare daal na ñoom lii pare nañu ci dootuñu ci dugg li ma leen wax léegi nag moo am solo xel du dal xel dafay daj xel du dal bay daj ñooñu nag ak ba ci ñi voté ji sax dañuy dem voté rek damaa dem jàmm gën ci Thiès ànd ak ñoom Sidi Bara bi am benn xale bu góor bu taxaw ci sama kanam di wax ak ma ne ma pap yow yaay sunu dernière chance. jubloo wax li ma si jubloo wax mooy yaakaar yaakaar yaakaar sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafay wax ne dina tax coono dina tax sax ñàkk woyof waaye bu dañee àdduna tukki yaakaar googu nag moom moo yàqee moo tax ñooñu croiser seen bras ñoom damay wax ak ñoom ñoo ngi ci seen kër yi toog ñoo ngi ci seen liggéeyukaay yi ña nga ca bitim réew toog damay leen di ñaan ñu jóg taxaw ngir senegal sunu borom sax day yónni yónent ba mu dem bu demee ña ca ña ña fa wuutu commencé wàcc yoon wi mu yónni waat keneen bu ngeen gisee it xamante ni dañuy jóg ngir yeesal li nga xamante ni loolu la fi gaa yu baax bàyyi woon Sénégal nag ay gars yu baax man Maulana Cheikh Ibrahim ku mel noonu réew mii li mu ci liggéey waa héritage boobu nuñ koy def héritage boobu yàqkat war nañ koo hérité saagakat war na koo hérité kuy wuñu sukkura war na koo hérité kuy sosal nit war ci politique askanu Sénégal ñoom ñoom lañ ci doon déglu ñoo ci suñuy kilifa ñoom rek lañu ñu fas yéenee taxawal du ñu doon bu somba du ñu doon bu démba waaye askanu Sénégal ñoom dinañ xam ne assemblée nationale bii ñu jëm dinañ fa am ndaw yoo dinañ dinañ ko am ndaw loo xamante ndaw ndaw loo xamante ni ak yeneen ndaw yi nga xamante ni yëpp tey ñoo bokk kujje politique bi nga xam tànn nañ kujje politique Sénégal tànn na ci fukki weer ak juróom-ñett yii ñu toll ne wax dëgg yàlla Macky Sall ak gouvernement fukki at yi daal askanu Sénégal daan na ko jox mu yor exécutif bi yor lu bari ci législatif bi waaye nee ko fukki weer ak juróom-ñett yii dañ la daan jox pour nga saytu waaye léegi dañuy ñëw saytul suñu bopp. dinañ fukki weer ak juróom-ñett yii ko dese ci bopp Sénégal askanu Sénégal beneen dañuy ñëw saytul suñu bopp contrôler ko proposer ay loi ba pare évaluer li nga xamante ni moom mooy les politiques publiques comme ni ko réforme 2016 bi waxee ci référendum évaluation des politiques publiques te contrôle boobu pour nga def ko wax dëgg yàlla foog nga moom sa bopp foog nga moom sa bopp foog nga moom sa bopp kon lu toll ci ñeenti million sénégalais yooyu ngal la jóg leen ñu takkaat la xasaay yi ndono li ñu bàyyee dafa foor lool te bu ñu defee juróom benn fukki at juróom benn fukki at ak lu teg plus de nga dem get ndax amul école primaire nan mën a nangoo juróom benn fukki at ak lu topp ñu ne ci Guet Ndar amul école primaire juróom benn fukki at ak lu topp ma dem dajeeg ma benn papa bu nekk nappkat ci Guet Ndar mu ne ma ñetti fan a ngi nii may lekk ceebu keccax nappkat buy lekk ceebu keccax mooy jën amatut juróom benn fukki at ak ñett sunu géej gii mel ni moomatuñu ko ana navire de pêche yi kan moo moom navire de pêche yi moo tax ñun ministre de la pêche ñoo ngi lay xaar assemblée nationale dinañ la wax nag dinañ la wax dinañ la wax dinañ la wax ñu ànd ci ak kute gi ngir def inventaire du pavillon Sénégal bi nek ci géej gi dañu xam ñan ñoo ñew di jël suñu jën yi di ko yóbbu te loolu mënatul ne ndax dinaa leen wax tay lu ngeen xamul est-ce xam ngeen licence de pêche tay bu ngeen démé ci géej bi lay taxaw bala may ñew ci mbay mek tam bi bu ngeen démé tay jii ci ñi ñuy jox ñi ñuy jox licence de pêche ay xalé yu jambaré yo xamanteni ni jaay nañ seen géej tey ca Ndar ci ci tayaar ak mbuur ak fépp ndeysaan ñoom bu ñu demee dañ leen di jox ay licence de pêche ci Mauritanie waaye ndax xam ngeen ne Mauritanie dañ leen di nappaloo ba pare pour ñoom bu ñu nappee ba sonn te napp googu rek mooy jàmm ji ndax mën nañ dafa tëj kaso mën nañ laa ray jël sa bakkan fii may wax ak yéen ña ngay xëcc ay fiin ña nga nekk ci biir bëgg na sori ca géej ngir sàmm seen ngor ak seen ña nga nekk tey jii doomu Sénégal yi jàmbare yooyu ci condition yu métti ci càmm gi budget tey budget élevage buñ la ko waxoon nga bëgg a jooy waaw loolu kan moo koy saytu bu dul député bu moom boppam loolu foog ngeen xam li ci xew ñi nga xamante ñoo nekk ci càmm tey soixante ans après bu ñuy jub tabaski wala korité bu Mali ak Mauritanie ci jiwul seen frontière adduna tukki te ñu am ñoo jàmbaar yoo xamante ni yar rek mooy sax seen baaxu maam waaye tey mënatuñoo sax càmm càmm gu normal ndax amul politique élevage amul tey Sénégal bokkoon na ci réew àdduna yi njëkk am industrie tomb ci réew yi àdduna bi laa de ma réew ci Afrique de ci àdduna bi ana industrie tey ñu dellu ginnaaw ci wàllu industrie fukki at yi Sénégal defu ci benn conseil ministériel sur l' amul tax tax xibaar yaa ngi yéen a gën a sonn bala ngeen jot ci bis de l'industrie àdduna tukki conseil présidentiel sur l'industrie amul annoncé nañ ko mësuñu ko def te dëkk yi développé ak yi développé wul benn différence la ñu am ñii dañ leen industrialisé ñii industrialisé wul leen ndax soo industrialisé wul ci importé rek ngay nekk nag wax dëgg yàlla importé rek njëg yi di gën a cher rek xoolal tey njëg yi ni ñu toll Sénégal nit ñaa ngi bëgg a dee ak coono njëkk yi na lool lool nga am fukki juróom benn fukki at mënoo defal sax photo mënoo defal sax cure-dent da nga koy importer waaw lan la ñu bëgg nii loolu mënut moo ko mën boo ñëwee boo ñëwee ci culture bi muy la ngay dundee la ngay bay la ngay la ngay dundee mooy la ngay bay bay dunde waxuma la sax fierté bi ci ne waaye foofu yi joxaw waxuma la sax mbay mi juróom benn fukki at mënu leen a dimbali ngir ñu muum seen bopp ndax da bay ñetti weer foofu la ñu ko waxee ci cun dunde ko benn weer waaye dañ fa demee keroog ñun ñoo taal sunu oto lamp yi ngir mën leen a niital ngir mën a nit jotaay bi waaye li gën a yéeme mooy soxna yéen ko fekk dañ nañu léegi ñoo